ci pa si man xam nga man 2021 c'est à dire man mm-hmm. man y a rien d'étrange mm-hmm. y y aura pas de surprise aussi parce que mm-hmm. man depuis premier jour lan affaire Ousmane Sonko ci affaire Adji Sarr premier biñ xëyee ñu convocation man njëkk taxaw ci plateau direct ak chat, Yana a jour beau presque aduna ñëpp mo ah, na ndax ki dafa dof ndax ki état bee ko jënd ndax naang man maa njëkk taxaw ne les institutions de la république bi Ousmane di génn sax dévier yoon bi préfet bi ne ko awal nii parce que dama ne même stratégie bi la ñu utiliser woon ci Idrissa Seck c' était une stratégie politique mm. que bu ñu jaaree ci ginnaaw dafa am ñu ñu war a rey ñu jaar Médina jaar euh, euh, ci étudiants yi mm. diggante bi ñu war a dem balaa ñu yegg ba àdduna yëpp topp ñu mm-hmm. c' était une stratégie politique mm-hmm. bi mu waxee loolu parce que xam nga lu ma njëkkoon d' accord parce que dama doon xeex ci Covid ànd ci ak prof Moussa muy sama initiative def ci ay volontaire mm-hmm. tey maa ngi leen di gis ba Kédougou si laa dugaloon Marème Soda mm-hmm. noonu mm-hmm. porteloo ko ko nangam nangam mais période boobu nit ñi ñu ngi ci Covid moom nee na damoo dégg mu ne gars dañuy utiliser misère u jàmbur yi. opposition bi dañuy utiliser misère u jàmbur yi. mais moom misère u Covid bi. boobu ñu tëj gars boobu la utiliser. bi affaire Covid bi amee boobu dañu waxoon xam nga sax dafa ne moom moo bind ne puisque dañu nekk ci ci ci affaire liberté yi xaw ma ci affaire couvre-feu bi. Mhm. état d'urgence. mënul mhm. def conférence de presse kii bi nañuy tànn quelques micros. ñu indi ko këram. c'est vrai. Ah, xam nga texte boobu lañ leen bind. léegi moom moo wax texte boobu te te da ngay xool moom. Mhm. bi ñu waxee loolu. Hmm. ci saa si xamoon na ni moom dafa am immunité parlementaire waaw mais stratégie politique la leen def mm-hmm. xëy ne rassemblement joxe moo door du ñuy def rassemblement pour këram pourtant police bi muy ñëw këram mm-hmm. dafa leen doon wax ni ni dañuy tere rassemblement bi waaw mm-hmm. Jibi Gueye Ndiaye di jaabante ñoom di jaabante ñoom parce que boobu rassemblement yi dañ doon tere mais boobu indi na rassemblement biir kër buntu këram utiliser covid bi ci biir covid bi mu utiliser gars yi dem toj Auchan yi toj yeneen ba ñu levee si l'état d'urgence boobu si le Macky 20h heures di lever affaire yi wàccee ko yéegal ko. Mhm. dëgg la. parce que da ngay dégg xale yi sax ñu né la Ousmane mo ñu libérer ci Covid bi. té bobu fekkoon na police bi ak gendarmerie bi xeex ak xalé yi. Mhm. parce que xalé yi fekkee wuñu couvre-feu. 88 mhm. ak ay yoy parce que jamono bobu ñun dañ doon def ci sensibilisation bi doon wax ni état bi bi muy def affaire hôtel Macky euh, habilitation def ki dañu wax ne ni couvre-feu. xalé yu bees yi xamuñu ko. bobu lañ leen doon wax rentre restez chez vous. ñëpp di ci wax mais xale yi xamuñu ko mooy xeex yi doon am police biir Médina. Mhm. police yi ci biir Grand mhm. Dakar. Mhm. police ba xale yi mere police bi. tout à parce que vingt booy war a dem jënd ji reer. waaw waaw yi daan jaay guddi. artistes yi tëggatuñu. feccikat yi dematuñu guddi. industrie yooyu loolu bomb bombe boobu moo taxawoon. c'était une bomb bombe boobu nag si la surfer moom. dëgg la gis nga bi mu génnee woote lool si la ñëpp génn. bi ñëpp génnee da gis ñu ne ah lii dafa métti dafa jeex gis nga après si la Macky Sall jël mesure. Mm. teggi ji affaire boobu. teggi affaire Covid boobu loolu la wax man période boobu si laay taxaw naan leen non non biñ ñu convoqué. Mm. affaire immunité parlementaire bi jàllul. si mm. la jël ni dinaa wuy ji. Mm-hmm. mais Ousmane Sonko pour mu dem wuy ji ay nit ñoo ko ñaan. dëgg la tey comme d'état yi ko ñaan foofu man am na kilifa yoo xam ne ay ñoom xalifa ak yenn gars yi jege dama leen wax ni ni mm-hmm. yéen foofu ngeen ngeen ngeen defee parce que yéen Ousmane Sonko li mu dispositif bi mu tegoon. Mm-hmm. ci wàllu xeex. Mm-hmm. yéen xamoon yéen yéen a dem déjoué ko war ni ko état ngay jàkkaar lool. Mm-hmm. mais bi mu génnee jóg pour dem ba ba muy dem bay boole ay loxoom di ko boot. ñu naan jàpp nañ ko ñu naan ko di def mën di joxe monde di boot loxo yi ci ginnaaw. Ah, dëkk bi tax dafa boot loxo yi rek parce que nga gis lépp. de waaw jàpp nañ ko waaw ah, waaw jàpp mais loolu yëpp man ma koy dund. waa ji dafa def ma bett. nee leen stratégie la. ñi ànd ak moom seen stratégie la. dëgg la maanaam le mensonge. la manipulation non déedéet manipulation. tout à fait ah, c'est-à-dire seen stratégie la parce que xam nga mais xam nga boo nee ñun fii Sénégal. te topp kaa affaire yeeg yooyu mensonge dafa bokk si ñun parce que Aminata Sow Fall bi muy bind livre am boobu. Hmm. ci ci ci ci ci Sénégal. Hmm. di wax ci jikko sénégalais mais dafa bokk si ñun. te c'est-à-dire fen bi xam nga li tax mu ñëw dafa moom si boppam Ousmane de Ousmane dafa am. ñu koy réfléchir c'est une machine. Mm-hmm. ah dama ko réfléchir Ousmane c'est pas Ousmane. Ah, Ousmane il porte il porte un projet. un cocktail de projet ay ay nit yu bëree nekk ci biir. waaw c'est-à-dire moom moom dañu ne profil bi parce que dama toog benn kilifa bu am doole ben jour. Mm. mu ne dafa am ñuy bëgg a téye état ñooñu ñooy xool. Mm-hmm, le bon profil. xam nga lu tax ñooñu dem ci ginnaaw Ousmane. parce que mm. il sa il sait que mënuñu manipuler Idrissa Seck. dëgg la mënuñu manipuler Khalifa Sall. mënuñu mhm. manipuler kenn. léegi dañuy dem seeti ji ki nga xam ne esprit dafa faible mun nañ ko manipuler. Yo même on café <laughs> cest pas dit non non non les les les lobby yi décidé non ah, on na dëgg nag wax na dëgg ah, non ba ah, non non les les grands lobby là bah, non dama wax ne les lobby bëgg di porter lolo projet tout à fait dañuy ñëw tok xol tout à fait yow dañ lay wax solal mbubu bi jëlal auto bi fi ngay aw fi ngay voyager fi nga wara dem télé bi suñu tel fii nga war a communiquer fee nga war a defee la mais il a parfaitement raison waaw léegi moom foofu laa la wax ne la <laughs> mais waxoo de waaw moom foofu ne xam nga parfois loolu mooy indi waaw nga gis détachement dama ne la dafa am faux départ Ousmane li ñoo ñu investir ci moom yëpp bi mu demee ci affaire Adji Sarr bi dafa am ñu bari ñoom di dañ ci dañu dañu gis ni ni projet bi warul woon yegg foofu moo yàq projet bi parce que man dama wax ni burul woon Adji Sarr bi Ousmane mooy nekk président dëgg la parce que dafa ah, dafa hein. bu dul won Adji Sarr c'était Ousmane le profil xale yi ñëw parce que chaque année chaque 20 ans day am révolution buy jóg mais na abou fofu est-ce que ñun waruñoo remercier ñu Sénégalais yëpp Adji Sarr tamit wa déggu motax mo wax la ñun ñun ñun ñun ñun ñu ko wara décorer waaw waaw Adji Sarr dafa ñëw sauver nak Adji Sarr bu demee woon nii événement bobu amul won duñu duñu waaw ah, duñu duñu duñu duñu léegi nag bi affaire bobu amé nga gis ñu bari lolu tax mané la basirou Diomaye nit ñi dañoo bàyyi woon dañu investir ci projet Ousmane depuis Ndawi askan wi depuis Forest depuis 2014 depuis 2019 ah, hmm. après 2019 xam nga dañu ne Ousmane Song, après 2010 dañ ko waroon tëj ñi moom projet bi dafa leen rëcc les propriétaires des du projet dafa leen rëcc moom dem hmm. gis nga affaire bi mu amee loolu moo bouleversé ñëpp ñi les premiers témoignages gëmmuñu ko woon parce que jàppoon nañu il est assez intelligent hmm bon fait dafa am ay ay ay ay ay deuxième ay deuxième bureau dina ay copains témoin. en cas de ñet ñet a dem def mais ñun am parce que après beaucoup l'on le le le mais xam nga xam nga wax problème soko amé hmm. ñun ñëpp xam nga li ko dal ni man mbirum Adji lan la ci doon dama dul won diko ci parce que goor gour, goor bo gis hmm. amna ben côté fay ci sa côté faay boobu parfois sa meilleur copain mooy daw dem gàggadu ko. léeg-léeg nit dee ñoo ne ñaata takk suuf. Mm-hmm. ñaata kilifa ñoo xam ne tey dama ne am na kilifa yu bari yoo xam ne seen doom yaa ngi romb seen buntu kër di jàngi te seen i doom yi bàyyi xamuñu ko. dëgg la. parce que seeni copains la ñuy am ñu dem taxal leen defal leen nangam ak dama ni xam dama lay wax ne la li ci góor ñi dama lay wax ne góor ñi capable ah. dafa am yenn côté yoo xam ne dangay toog benn nit mu ne la xam nga dafa dama dégg benn jour xaw ma non Barthélémy Dias laa di dafa newoon toog na fii sax ne góor la waaw góor mais xam kenn ah, condamné wu ko ci loolu. mais xam lu tax kenn. parce na mais bi mu commencé weddi sax batt moo ni ko. bi mu commencé weddi. batt moo ko may fi ni ko bul weddi. bul weddi mais mais da dem leen ngeen lire la lettre de Abdoulaye Wade. Mhm. bi affaire waaw de c'est-à-dire sénégalais ñoom dañuy am ni si dañuy fàtte. dañuy fàtte de. Abdoulaye Wade daf ko lire bind benn lettre ne ko dañ laa fekk foo xam ne ni. mooy sa faiblesse. sa ñu ñu ñu kii la fa mënatoo reculer. demal nga ut ay avocat yu baax. Mm. mais man bi ma jëkkee def émission bi mu hmm. njëkkee def émission. Hmm. mais maître Djibi Diallo lan la leen wax. Hmm. dane ay avocat am ñoo aayul. su ma ay su doon ay avocat ay nañu dossier bi du génn gendarmerie. dëgg la foofu la ay xaritam di dem di waxtaani jéeg. Adji Sarr Adji Sarr ak i ñitam ba dossier bi yam foofu. la loolu du woon dossier boo xam ne day yéeg. sa parce que xamul ndax nit kuy nëbb ay xaritam la Ousmane day nëbb boppam. nëbbaale boppam sénégalais yi. ba nëbb ko Joms. waaw bi ñuy génnee di def.